أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على الصائر السحور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحيم الرحمن الذي خص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi ànd ak yéen ci téere yàlla bi subhaanahu wa taala di jël tey aaya 224 225 226 227 mu nekk ñeenti aaya yu nu sunu borom subhaanahu wa taala di jàngal nekkin ñeenti aaya yi ñaari aaya yu njëkk yi borom bi subhaanahu wa taala def ci tere jaamam ñi yi gëm yàlla waat surtout waat boo xam ne dalay tere def lu baax léeg-léeg nit jël prétexte di waat waatlu pour jéem a bañ a def lu baax comme waat ne dootuma sarax diw waat dootuma wax ak diw waat yéen ñaar ñii da ngeen a yàgg xuloo yàgg a xeex ñu yàgg cee wax giñ naa ci yàlla ne yéen ñaar dootuma waxat ci seen mbir waat yu mel noonu sunu borom subhanahu wa taala daf ñu koy tere ci aaya yi nekk sunu kanam sunu borom subhanahu wa taala di yedd jaam yi di wax ak ñoom naan leen bu leen def prétexte sama tur bi man yàlla bu leen def yàlla baaraazukaay pour seeni ngiñ pour def lu baax wala yéwénal diggante ay nit borom bi ba mu leen teree loolu ba pare daf leen wax ne man aji dégg laa te aji xam laa ku xam jëfi jaam ñi laa kuy dégg seeni wax kon nañ ma ragal man yàlla ñaareelu aaya bi sunu borom subhanahu wa taala mu ngi ciy leeral di jàngal jaam ñi ne du leen jàppe yenn waat yoo xamante ne njuum moo leen ko defloo juum moo leen ko defloo wala ñàkk a bàyyi xel ca la ñuy doon waat ba waat fekk leen ca comme nit sàkku ci yow dara nga waat ne ah wax dëgg yàlla de fi ma fi ma nekk ne yoruma dara nga toog tuuti dugal sa loxo sa poos fekk fi dara fekk waatoon nga ne dara nekku fi waaye bàyyi woo woon xel ne am na lu fi nekk ngiñ gu mel noonu yàlla du la ko jàppee waaye yàlla dinañu jàppee benn ngiñ goo xam ne dañ cee dogu ba pare ñu toog tuuti ah ba ko rectifier loolu day dal lu bari ci sénégalais yi léeg-léeg nga am ak sa doom jafe-jafe mu tooñ la tooñ bu metti nga dàq ko mu daw nga jël dara sànni ko ne ko billaahi boo duggee ci kër gi tey ma rey la nga loolu bari na ñu toog ba ngoon benn waaye jàpp ko indi ko nga daal di koy bàyyi ne ko waa xam nga man kii ah daal di jàpp fàtte fàtte nga billaahi bi nga waxoon loolu dafa bari ci dëkk bi billahi kii dootu fi liggéeyati yow suba mu ñëw waay waay comme nga rek nga ne waaw waay bàyyi li ngay def nag yow tamit léegi moom mu continuer yow fàtte nga li nga giñoon ngiñ googu yàlla daf ñu koy jàppee te ngiñ googu dinañ ñëw lan mooy atteem ci lislaam sunu borom subhanahu wa taala mu ñëwaat ci ñetteelu aaya ci ay nit ñoo xam ne ñoom it dañuy jékki-jékki rek daal di waat ne dootuñu séy ak seen soxna ku waat ne dootul séy ak soxnaam saxaaba yi daan nañ def loolu yonent bi sax def na ko waaye fexeel ba bu mu mat ñeenti weer bis boo meree sa soxna ñeenti weer bokku leen lal sëy ba tas na sëy ba tas na nga waat ne dootoo sëy ak moom ba mu mën ñeenti weer sëy ba tas na looloo tax alquran rek moo dëgg mooy dëgg moo ñëw di defar suñu dund maadaama ñun ay jullit lañ mënuñu dund sans quran gis ngeen catastrophe yi ngeen di gis ci dëkk bi tooxi doona yépp ñàkk a xam lislaam moo ko waral ma aaya yi ñu doon jàng barki démb ba léegi gis ngeen ay atte la yoo xam ne ñun ñii ñoo ko moom bu ñu jëlee kaamil yi nag def ko comme nii ku nekk sa kër sa kaamil da nga koy naay sale armoire bi te kaamil yi du woon pour armoire bi waaye pour borom armoire bi la woon nga jël kaamil yi def ci oto bi ci kanam ne day aar oto bi du woon oto bi pour yow la woon kitaabun anzalnaahu ilayk li tuxrija annaas min azulumaat ila nuur téere boo xam ne dañ ko wàcc ci nit ñi pour mu génne leen ci lëndëm yóbbu leen ci leer yàlla mi ñu bind xam nañu moo tax mu teg ay atte sunu kaw atte yi mooy alquran bi moo ëmb loi yi pour ñu war ko dund ku def lii lii la ku wax lii lii la ku bëgg a def lii lii la bu ñu ko defee téere barkeelu nag bala ñu koy jàng am ku dee wala def ko téere boo xamante ne aaya doye wuñ ko dara lul jaxase koog lem ak suukar di ko naan ak di ko sangoo ñu fàtte ne li ci gënoon rëy mooy ñu dund ko nii rek la sunu dund di mel ndax jàngeen ci alquran yàlla mu ne wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan danka ñépp ñi nga xam ne dañoo bàyyi téere yàlla subhanahu wa taala yàlla nee na dañuy dund dund bu bon dund bu kare sunu borom subhanahu wa taala mu ne ñi nga xam ne dañuy waat dootuñu jege seen soxna ba mu am ñeenti weer bu ñu delloo yàlla aji jéggale la yàlla day yërëmaate bu ñu demee nag léegi ba bugg a continuer sëy bu tas ah nañu continuer ndaw si moom saa yoo dogoo ci fase ko rek ci ñeenti weer yooyu deltoo ginnaaw ñeenti weer yi mate fase bi day am boo dellusiwaatee ci diggante bi aussi am na ay àtte yu islaam teg ci sa kaw ixwaan yi kon ñeenti aaye yi mooy ay yi fas yéene fàttalante tey ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def ci suñu làmmiñ sabat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله أردة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم يقول جل وعلا ولا تجعلوا ngalla waay bu leen def wala tajaalu bu leen def lan ngeen di def allaha yàlla urdatan pakk li aymanikum pour seeni ngiñ
bu leen jël yàlla di ko def barrage pour seeni waat bañ a def dara lu baax daan ne billahi waxoon naa ko du ma ko def waatoon naa ko ba pare dootuma ko defati fekk loolu lu baax la déedéet bu leen ko def kenn du jël yàlla di ko def barrière sa digganteeg jaami yàlla yi pour bañ a def lu baax billaay waatoon naa ne dootuma dem jàkk waat boobu da waat boobu du waat bu da normal billaay waatoon naa ne dootuma saraxe déedéet lu baax kenn du waat pour doo ko def moo tax yàlla mu ne bu leen def prétexte aaya bi qiila nazalat boroom xam-xam yi nee nañ aaya bi dafa wàcc fi abi bakrin siddiq radiallahu anhu wa ardaahu lama xalafa an la yunfiq ala ibni xaalatihi mastax ba abu bakar waatee ne dootuma jox dépasse sama doomu mbokk mi mastax lan la mastax defoon mastax mooy ki tuumaaloon yaay Aysa njaaloo te abu bakar moo ko fatoon këram yor dépassam te Aboubacar moom moo jur Aïcha bi histoire bi tasaaroo ba mu feeñ Aboubacar yëg ne waa ji nga xam ne daf ko fat yoral ko dépasse guddeeg bëccëg waa ji mooy tuumaal njabootam Aboubacar ne kii dootuma ko jox dara yàlla ne ko déedéet déedéet ndeysaan ngeen xam ne saxaaba yi duñ ñun duñ ñoom bi alquran wàccee ne Aboubacar déedéet xanaa li nga ko doon jox yàlla taxul Aboubacar ne ah kay yàlla tax mu ne kon bu mu dakk Aboubacar dafa double dépasse bi bu doon ñun fii da nga naan kii da ngeen di sonn rek bu yàlla wàccoon sax dootuma ko jox ngay dégg fii sénégalais waaw kenn mënatu ci dara bu kii bu leen sonn bu yàlla doon wàcc pare naa ci moom du noonu xanaa yàlla taxul li nga doon def moo tax def ngir yàlla lu am importance la def ngir yàlla ngir yàlla ñenn ñi ne déedéet aaya bi wàccul ci abu bakar de nazalat fi abdullahi ibnu rawaha ñu ne ci abdullahi ibnu rawaha la aaya bi wàcc xiina xalafa an la yatakallama xat na ba mu giñee ne dootul wax ak waa ji bashir ibnu nu'man mu giñ ne dootul wax ak Bashir ibnu Nu'man ah ñu ne ko déedéet yow nit ñi seen problème yëpp mooy diine ji dañ cee dugal seen bànneexi bakkan te diine ak bànneexi bakkan du ànd diine ak bànneexi bakkan du ànd diine dafa nekk côté bakkan nekk côté léegi nag nit ñi dañuy jël aaya yi ak hadis yi poñe leen pour ñu fekki seen bakkan au lieu ñu poñe seen bakkan fekki aaya yi déedéet nit ñi dañuy jëli aaya yi fa la ci kaw asamaan indi ko ne ko kaay ànd ak sama bànneexu bakkan gis nga waat naa lii dootuma ko defati dootuma ko defati fekk lu baax la waat naa ne dootuma di julli ji jàkk waat naa ne dootuma sarax waat naa ne yéen ñaar da ngeen a yàgg xuloo dootuma wax pour seen diggante baax déedéet parce que yii ngay wax dootoo ko def yëpp yu lan la lu baax la te lu baax nit mun warul waat ne du ko def parce que dafa baax lu bon kay ngay waat rëccu ne dootoo ko def mais lu baax yàlla nag subhanahu wa taala dafay wax nit ñi yàlla moo xam nit ñi am na koo xam ne bu bal bu la bañee defal dara danaan non waat naa waat naa ne bëggoon naa la jox mais bàyyi naa ko parce que waat naa ko léegi nag pour yow nga noppi soo ne ah mu ne la dama koo waat te xam nga waat li ci nekk di la tiital nag waaw xam nga waat li ci nekk te waat naa ko ba pare déet sa waat boobu da nga ciy dellu ginnaaw parce que lii lu baax la lu bon la ñu wax ne boo waatee bul ko def te dina ñëw léegi atte yi ci ginnaaw boo waatee lenn ba pare te mu nekk dëgg nga dogg ci nga dellu ci ginnaaw lan mooy sa atte yow kon yàlla moo nu xam alaa yaalamu man xalaq wa huwa latifu lxabir kon yàlla nee na wala tajaalu ngallawaay bu leen def ñan la yàlla di waxal ñi gëm yàlla ñi gëm alquran ñoom la yàlla di wax ne yéen ñooñu yor téere bi toog ci jàkka ji tiim ci téere bi yéen laay waxal de xam nga lu gën a bon mooy nga ñëw tafsir ñu naan yàlla nee na nga jàpp ne kële ci mbedd mi lay waxal ay ñun ñii lay waxal man mii ak yéen ñii kenn ku nekk ay yi nga tiim nii ñuy wax yow la yàlla di waxal yow loolu moo taxoon saxaaba yi rëcc mucc ndax lan ñoom dañoo jàpp ne ñoom kenn ku nekk soo dégloo alxuraan ba pare da nga naan ci man de man mit man tey man rek la yàlla doon wax man la yàlla doon wax tey man waaye ñun xam nga luy suñu problème lii ñuy wax ni xool yaa ngi naan waaye paa bi la paa bi la loolu la ci moom tamit mu ne kii la kii jox ko kii ñu dem ba mu ñëwaat fu mu jóge woon ndeysaan xoolal Umar Umar kenn la ci yonent bi ne da nga dugg aljanna Umar mu ne waaw mu ne ko anta min ahlil janna yow da nga dugg aljanna Umar nee na su ma déggoon benn baat bu woote kaw asamaan ma ñu ne eh yéen ñoo ñu toog am na ku dul dugg aljanna dama naan man la fii tey bu ñu ne woon fii ne am na ku fi dem safara lu ñuy wax kenn du leen da ngay xool ni ngay def da ngay def da ngay def au lieu nga xool sa bopp di ni ngay def day commencé di xool bu ñu noonu kenn day dugg fi àjjana nga arrière yëkkati kaamel bi ci kaw pour ñu ne yow la gis ngeen loola moo tax saxaaba yi rawnu mbokk yi lii moo tax nit ñu baax ñi rawnu ñoom dañ doon tuumaal seen bopp ñoom dañ doon xeeb yu baax yu ñu doon def ay ndigal la yàlla di sàkku ci ñun naan wala tajaalu bu leen def kan mooy wax loolu allah yàlla wala tajaalu allah bu leen def yàlla urdatan pakk lan mooy pakk mooy barrière barrage bul jël yàlla di ko def barrage ah pour nit ñi duñu agsi ci yow nga jël yàlla ñege ko gis nga démb bi muy taw wala barki démb ndox mi di dugg fii dañuy jël ciment ak béton ak suuf gi jaxase ko dem ba ci tali bi baare ndox mi fi muy jaar di dugg léegi bari loolu mooy urda mooy lu ñuy baare baaree urdatan li aymanikum nee na urda mooy maa yunsabu fi tariq maanian fa yaataridu tariqa saailin mooy loo xam dañ koy def ci yoon bu ñu bañoon tey nit ñi jàll dañuy ñëw baare yoon bi loolu mooy urda pour ñiy dox buñ jaar foofu li aymaanikum seeni ngiñ giñ gu ngeen di giñ mooy waat al aymaan mooy ngiñ baatu aymaan ñu ngi ko jëlee ci yamin ci ndeyjoor lan moo tax mooy nit nit ñi démb bu ñu giñoon ba pare nit ne la billahi wallahi wa tallahi daf lay jox loxo droite pour wane lii mooy signature ngeen gësam dëgër na terminé da koy def moo lañ ci de ko yamin su giñee ba pare da lay jox loxo ndeyjoor bi ñu xam ne lu dëggu la même gis ngeen nit ñi bu ñuy waat lan ngay waate sa loxo ndeyjoor même président yi gis nga même même bu dul ay jullit sax bu ñuy waat ban loxo la ñuy yëkkati droite gis nga mooy saa yoo yëkkatee loxo droite nga waat ci turu yàlla mooy sa saye lii da nga koy def bu dee looy bàyyi la bàyyi nga ko bu dee looy def la da nga koy def yàlla nag subhaanahu wa taala gis ni am na ci nit ñi ñoo xam ne dañuy giñ di làqatu ci ginnaaw yàlla pour bu kenn am accès ci ñoom yàlla ne bu leen ma fowe mooy bu leen fowe yàlla an tabarru waat yooyu ngeen di giñ pour du ngeen topp yàlla ne du ngeen baax an tabarru wa tattaqu attaatu alburur attaa wa fi'lul birri mooy waat waat boo xam ne dalay teree def lu baax ak topp yàlla loolu bu ko kenn def ci yéen kuy waat kay da ngay waat pour baax waaye waat an tabarru pour doo baax loolu musiba la jullit warul waat pour bàyyi def lu baax abadan alxuraan daf ñu ko tere waat pour doo ragal yàlla loolu islaam daf ñu ko tere fokk ñu xam waat yàlla moo ko moom moo tax yonent bi ne woon Umar man kaana xaalifan falyaxlif billah aw li yasmut kuy giñ na giñ ci yàlla te noppi kenn du giñ ci nit da ngeen di jàng ci lislaam am na ñu ñu ñu tuddee al abadala ñeent lañ seen tur abdullah la comme dañoo bari ñu yóbbu ko jamu tuddee ko al abadala ñeent lañ abdullahi ibnu abbas abdullahi ibnu mas'ud abdullahi ibnu omar abdullahi ibnu amr ibnu as ñeenti ñi ñu ne nga giñ ci yàlla nga fen moo gën nga giñ ci nit nga wax dëgg ñu ne leen lu tax ñu ne boo giñee ci yàlla nga fen bàkkaar nga def soo giñee ci nit nga wax dëgg da ngaa def sirk te sirk yàlla du ko baale te wa yaxfiru ma duna zalika liman yasha te fen maa duna zalika la wa yaxfiru ma inna allaha laa yaxfiru an yushraka bihi waat ci nit shirk la man xalafa bi gayri llahi faqad ashraka wa kafar waat ci nit bokkaale la te yàlla du bale bokkaale kon nga giñ ci yàlla nga fen moo gën nga giñ ci nit wax dëgg Sénégal nag da ngay dégg man ku ma giñal ci turu diw gëm naa ko laa ilaha illallah nit ñëw ne la yàlla ah dégguma la woon sax dégguma la la wax nga ni mu naan la billaahi gëmoo suñu yalwaankat yi sax xam nañ ko te naan ngir yàlla kenn du la faale ngir yàlla kenn du la faale waaye boo ne ana waa kër diw yaay dugal loxo yi ci poos yi ubbi comptoir yi loolu bokkaale la te sarax boobu amoo ci dara amoo ci yàlla xam nga loo ci am mooy perte sa xaalis saraxe ba pare perte parce que du yàlla moo tax nga joxe suñ la nee ngir yàlla wattaqullaha allazi tasaaluuna bihi loolu la yàlla wax lagal leen yàlla mi nga xam ne moo tax ñu leen di laaj ñu la ne ngir yàlla yàlla moo tax ngay saraxe joxeel waaye ñu ne la ngir yàlla nga ne naj nopp noppi ngir diw nga joxe amoo benn tiyaaba ku def te defoo ngir yàlla da ngay perte gis ngeen Aboubacar aaye bi ñu doon wax léegi léegi ba mu waatee ne kii comme mooy yàq sama kër di tuumaal sama doom njaaloo xoole ku toll na yaay Aïcha ñu tuumaal ko njaaloo histoire bi tasaaroo ci dëkk bi ba Aïcha génn kër yonent bi dem ñibbi kër papaam ki def lool xanaa kon war nañ ne Aboubacar wax na dëgg parce que kii waaye déedéet yàlla ne eh xanaa liñ ko doon jox du maa tax. ne waaw dama ko doon def ngir yàlla mu ne acca na continuer Aboubacar dem continuer moo tax l'islam du ay waxu kese l'islam du lii nit ñi di gis nii l'islam mooy lii bu ñu bëggee nekk ay jullit dañuy dund lii mais bu ñu ko deful ñu sono suñu bopp rek yàlla mu ne wa tuslihu bayna naas gis nga an tabarru waajaa ngay giñ du ma baax wa tattaqaw du ragal yàlla wa tuslih bayna naas du ma dootuma dootuma defar seen diggante yéen ñaar ndax sonn naa ci déedéet al islah bayna naas defar diggante nit loolu dañ ko sàkku ci jullit gis nga ñu ne la fen dafa xaraam waaye ñaari fen dagan na mooy ban ak ban fen pour defar ñaari diggante nit ñaari nit am problème nga fen pour ñoom ñaar ñu juboo fen boobu dagan na waxuma laak nag ngay waat ne dootoo defar diggante bu baax diggante bu dagan na defar ñaari nit mun nañu am problème nga ñëw ci kenn ki ne ko yow loo jot ak diw mu nettali nga ne ko pourtant moom waxuma loolu de man de lu baax rek la ma wax ci yow fekk waa ji lu mel ne kaani la doon wax ah pourtant moom waxuma loolu de moom de lu baax rek la ma doon wax ci yow looloo ma jaaxal yow li nga wax nii yëpp ne moom moom moom waa ji waxul loolu lu baax rek la wax ci yow nga dem ci kële kële tamit nga ne ah man de yéen jaaxal ngeen pourtant ci moom laa jógee léegi mais lu baax la wax ci yow in seytaane leen boole rek da ngeen déggoowul rek nag loolu kese la waaye nañ dem nga jox ko loxo waay gis nga nga jubale leen parce que ñaar ñu xuloo su paasee ñetti fan yàlla dootul nangu seen jëf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj yonent lu tax ngay woor alxamis lundi mu ne ci laa jut ñu ne ko lu tax ngay woor alxamis mu ne ci la yàlla ci la malaaka yi di gaaral yàlla jëfi jaam ñi damaa bëgg bis bu ma yàlla bu ñuy gaaral yàlla samay jëf yàlla xool sama jëf fekk maa ngi woor mu yërëm ma mu ne yàlla bu ñuy gaaral jaam yi ñépp la yàlla di nangu ba mu des ñaari mbokk yu xuloo yàlla du nangu seen jëf waaw boo wooree ba ngoon fekk dangaa xuloog nit yàlla du nangu sa koor yéen ñaar ñooñu xuloo yàlla du nangu seen koor du nangu seen julli du nangu seen dara lu dul ngeen juboo kon bu alquran di ñu tere ñuy waat dootu ñu defar diggante ñaari nit wa tuslihu ngeen di yéwénal bayna naas diggante nit ñi bu leen def loolu de ndax yii ñu wax yépp mbiru mbiru lislaam la lu baax la lu ñu sàkk ci jullit mu def ko la waaye waat pour bàyyi jubal ñaari nit jubantil jubale leen islaahu bayna naas loolu dañ ko tere bu kenn waat ne dootuma ko defati bu kenn ci ñun waat ne dootuma def lu baax moom mooy aaya bi mu ne bu kenn waat maani an lakum min fi'lil xayri ci ne man terewu naa def lu baax aw tarku ism wala bàyyi bakkaar ah lii de du ma ko bàyyi waat naa ci yàlla ndaw si du ma ko bàyyi te du jabaram loo nar kon da dangaa nar a def ak moom bàkkaar loolu musiba la waaw dégg naa benn waay bu aji woon màkk ba mu jàkkaarloo kaawa gi amul lu mu doon ñaan mooy di tudd benn turu jigéen naan yàlla bu ma mucc ci moom maanaam yàlla na yàlla naa sëy ak moom loolu def xaraam kenn du kenn du waat pour def lu bon kenn du waat pour bàyyi lu baax abadan sooy waat da ngay waat pour def lu baax sooy waat da ngay waat pour bàyyi lu bon sunu borom ne wallahu yàlla samiun aji dégg la alimun ko xam la aaya bi ñu jàng ni mu daanu fii yàlla nañu ne damay dégg waaye ku xam la gis ngeen aaya yi mooy ñuy wax ne yàlla mooy yàlla te alxuraan dëgg la waxu yàlla la mbirum waat mbiru lan la wax ah moo tax yàlla mu ne sami may dégg gis nga aaya yi yàlla wax ci alxuraan yëpp fi mu nekk nii bu yàlla doon wax mbirum xam-xam asamaan niñ ko bindee wala suuf niñ ko bindee buy daaneel aaya bi du nuroog du wax samiun alim du wax samiun alim buy wax ci tawxid ba aaya bi di daanu du wax samiun alim lu nekk même buy wax ak jullit ba aaya bi daanu da ngay xam ne bu aaya bi daanoo rek jullit yi lañ doon waxal moo tax da ngay xam ne alxuraan waxu yàlla la gis nga lii comme mbirum wax la yàlla di ñu di ñu lan mettre en garde di ñu moytandikuloo mu ne man wallahu yàlla man yàlla samiun aji dégg laa kuy dégg laa lan laay dégg mooy li ngeen di waat li ngeen di wax waaye alim ku xam laa seeni jëf suñ déggee lii lan moo ñuy war ci lii kon maadaama yàlla day dégg maadaama yàlla ku xam suñuy mbir la kon lan moon war mbokk yi lan moon war samiun li aqwalihim ku dégg seeni wax la alimun bi niyaatihim ku xam seeni yéene la lan ngeen yéene yow moomu di def luy sa yéene yow moomu di wax lan ngay wax kon su boobaa lépp looy defati di nga ko jéem a sellal parce que yàlla nee na la man sami maa ngi dégg waaye alim ku xam sa yéene la wa afaalihim ak seeni jëf comme demee na noonu falyattaquhu azza wa jal nañ ko ragal moom yàlla comme xam na sunu lépp nañ ko ragal nañ ko moytandiku ixwaani sunu borom subhanahu wa taala ñëwaat na ci beneen aaya mu ne laa yuaaxizukum allahu billaghwi fi aymanikum laa yuaaxizukum allahu yàlla du leen jàppe laa yuaaxizukum du leen jàppe allahu yàlla billaghwi ci mboosóor albatil wa ma la xayra fihi ak loo xam ne yiw nekku ci wa laghwu mboosóor mooy am na ñoo xam ne dañoo tàmm waat ba boo leen woon kaay gu nga dañ laan billaay du ma dem du ma dem demuma de billaay demuma te boo boo insisté ñu dem maanaam waat yooyu yàlla du leen ko jàppee kon dafa am waat bu ñu yàlla di jàppee ak waat bu mu dul jàppee waat bu mu ñuy jàppee mooy bu nga tibb ci sa biir xol waat boo xam ne mboosóor la nii rek langage la da nga ko wax ni ci kaw rek moom la yàlla di ñu wax fii laa yuaaxizukum allahu yàlla du leen jàppe billaghwi ci mboosóor yooyu ngeen di def fi aymaanikum ci seen ngiñ waat nga nee naa ko wallaay du ma la gunge du ma la gunge tey rek parce que dama sonn dama woor mu ne waay ju waay waay jooy jugal rek yow rek non tey rek tey moom nga jóg ànd ak moom pourtant xoola waxoon nga wallaay du ma dem mais dem nga wala yelwaankat bi ñëw nga ne ko wallaay du ma la sarax tey mais nga joxaat ko après juróomi dërëm wala li nga ko mën a jox waat yi nga xam ne fasoo ko ci sa xol yàlla du leen ko jàppee mu ne wallahu alyamin an yaxlafa al abd ala cheyin yazunnuhu kazalika fa yatabayanu xilaafu wala mu waat ci loo xam ne dafa yaakaaroon ne lii la fekk du loolu waat boobu mu waat ne mbir mi lii la après du loolu fekk dafa foogoon ne loolu la waat boobu yàlla du ko jàppee ku ci doon joxe misaal suñ ci doon joxe misaal comme nit njort wala mu jàpp ne yoralul kenn bor am ku ñëw ne ko yoral nga ma mu waat mais mu delluwaat ne ko yoraluma la mu delluwaat laajte wala mu def ay recherche ci ay papier ay dossier mu fekk yoral na ko waat boobu mu jàppoon ne yoralul kenn fekk yoral na waat boobu yàlla du ko jàppee ak yeneen yu mel noonu yu baree bari yoo xam ne yenn saa yi doomu aadama waat dafa ne dara la lii la mu dogg ci fekk bu ñu demee ba ci cëppaandaw la loolu mu foogoon li taxoon mu waat mooy dafa foogoon rek fekk foog boobu nag amul mu ne bañ demee ba ci biir la waa ji yaakaaroon fa yatabayyanu xilaafuhu mu gis leneen lu dul loolu aw maa yajri ala lisaan ala lisaanihi min aymaani min gayri iradati alxalaf wala léeg-léeg am na ci nit ñoo xam ne danañu giñ fekk nammuñu ko bëgguñu ko woon mën na nekk sax ci xuloo fekk bàyyiwul xel instant yu muy wax mu waat pour def dara wala bañ a def dara fekk bàyyiwul xel ne waat na loolu moo tax gis ngeen démb ba léegi ñuy wax ne aaya yi ñuy jàng ci lan lay wax ci sunu nekkin démb ñu ngi nekkoon ci mbirum kër diggante nit ak jabaram ci wàllu laab jigéen su ndaw si gisee mbaax war nga sëy ak moom wala waru leen sëy ak ndaw si lan moo ko war ci deret jooju gis ngeen tey ñu ngi ci mbirum waat loolu moo leen ne woon ne ndeke lislaam du lu ñuy làmbatu du lu ñuy wax kese waaye lu ñuy xam la ba pare di ko dund parce que yii li tax sénégalais yi mënuñu normal mënuñu baax mooy lii lañ xamut di nga gis benn waay boo xamante ne surtout ñiy jaay la ilaha illa te xoolal jaaykat buy waat dañ ko tere kuy jaay kuy waat di jaay di waat dañ ko tere ci lislaam mais am na ci ñoo xam ne billahi non kii best la non vrai la kii mooy vrai bi fekk yu dara amu ci loolu julli da ko war a moytandiku am na ñoo xam ne dañoo tàmmawaat tàmmawaat tàmmawaat tàng ta te gis ngeen laxdari bi ñu doon jàng bu ndaw bi dafay wax ne sax jullit di waat di wax ne day fase jabaram sax dañ ko tere wa ay maani talaq mooy ngi ñu passé billahi boo demee ma fase la wallahi ma la fekkaatul ci kër gi dinaa la fase wa wallahi boo ko laalee ma xoolal gis nga yooyu tàmm waat te am na ñoo xam ne noonu la ñu dëkkee noonu la ñu dëkkee seen biir kër yi seen soxna yeeg seen doom yi wallahi dinaa la rey wallahi bu ma la jàppee wal fekk dara du ci am loolu jullit daf ko war a moytandiku sunu boroom subhanahu wa taala mu ne laa yuaxizukum allahu yàlla du leen jàppe fi aymaanikum lo bi laxwi ci mbóorant yi ngeen di def mooy waat ci ñàkk tayeef wala waatu langage boo xamante ne ci làmmiñ la yem wala waat jàppoon ne mbir mi lool la fekk du loolu walakin waaye yu aaxizukum yàlla dina leen jàppe bi ma kasabat ci lu ngeen fas loo xam ne fas na ko xuluubakum seen xol yi xuluubukum seen xol yi yàlla dina leen jàppe ngiñ ngoo xam ne ca xol ya ngeen ko tibbe loolu bu yeboo ngeen xam ko nga giñ fas ko ci sa xol muy loo xam ne da nga ko dëggal allahu akbar maa taammadat alqalb loo xam ne xol bee ko fas wa qasdu lyamin li ajlihi li fiilihi xatman aw manuhu nga dogg ci mbir mi ne dinaa ko def wala dinaa ko bàyyi ah loolu na ngeen yëg ni yàlla def leen koy jàppee léegi nag saa yoo dofee lii nga giñ ci mbir mi dinaa ko def te muy lu dëgg defoo ko lan moo la war ci lislaam mooy nga def kafaara ngay kafaara lan mooy sa kafaara mooy nga jox fukki miskin ñu lekk comme ni nga bañee woor nga jox miskin ci ngiñ fukki miskin ngay jox lu leen doy añ wala reer wala ndékki foog nga añal leen wala nga reeral leen wala nga ndékkiloo leen soo ko doon dagg ci xaalis minimum 1000 francs 1000 francs nga xam ne waa ji dina ci añ añ bu dëgër naan ci ataaya jënd si mbuusub zi yenn saa yi sax mu ataaya ci bu paree daal di géex sant yàlla nga xam ne kii suur na bu soo giñee ne dinaa def dara defoo ko wala dinaa bàyyi dara bàyyiwoo ko na nga yëg ne kafaara tegu na sa kaw mooy lan itaam asara masakin munoo loolu aw kiswatuhum wala nga jox leen ku nekk benn grand mbubb bu ànd ak semisam ak tubéyam wala nga jox leen benn ensemble bu ànd ak mbubb ak tubéy kiswa aw tahriru raqaba mbaa nga goreel jaam nga wëri jaam ba am ko goreel ko mënoo lii yépp ñu ne la sawmu salaasata ayaam kon wooral ñetti fan yii ñu doon wax ban moo ci gën a sedd léegi ne xool leen xool leen waxuma waat sax ñi waat dëgg de xool leen waatu sirk yi bar barke diw barke diw rek te ku waat laa wax ci yàlla nga wax dëgg defoo ko lii moo la war kon est-ce que waat war nañ ko fowee est-ce que war nañ ko tàmmal suñu làmmiñ di ci welelee li guddeeg bëccëg dem ba nga xam ne tey waat nekkatul dara di nga gis benn waaye ne la billahi non kii nga ñëw mu naan ah c'est que te yow li tax nga gëm ko mooy lim la la billahi wala lim la wax wallahi lim la waat ci yàlla waatal ci yàlla moom nga yaakaaroon ne ndeysaan xam ngeen iblis pour mu nax aadama ak awa génneel leen aljanna dafa waat moo tax waat dangereux iblis lan moo génne aadama ak awa biir aljanna mooy waat iblis dafa waat wa qaasama lahuma wa qaala inni lakuma min annasihin dafa waat te boobu aadama ak awa jàppoon nañ ne mbindeef du waat ci màggaayu yàlla di fen bi iblis waatee rek aadama ak awa daal koy gëm ne dara terewu leen xam ngeen lu tax yàlla tere leen garab gii ñu ne ko ah xamuñu ko de mu ne yàlla daa xam ne bu ngeen ko lekkee da ngeen di nekk ay immortel takuna min alxaalidin aw takuna malakayni wala mu ne leen da ngeen di nekk ñaari malaika dootu leen dee éternellement wa qaasama lahuma mu giñ allahu akbar ci màggaayu yàlla ñoom ñaar xamuñu woon xamuñu woon fen musuñu gis kuy fen xam nañu yàlla aljanna lañ nekk gis nañ malaaka yi gis nañu màggaayu yàlla ah ñu giñal leen ci yàlla ñu dem laal garab gi lan la yàlla wax ndeke wa dallahuma bi xururin daf leen a trahir daf leen a wor ndeysaan daf leen a wor moo tax waat nañ ci def ndànk war nañu yar suñu bopp ba duñu boyal suñu làmmiñ ñi rek fooy la gis rek bi laaj wala laaj rek laaj non leen ndànk téye làmmiñ yi bul waat booy waat xoolal li ngay waat gis nga léegi atte yi ñu wax soo nee billahi wallahi wa tallahi arsh day yëngatu fi yàlla nekk day yëngu boo fenee nag xoolal nga fen fen boo xam ne yëngal na fi yàlla nekk bàkkaar boobu foo jëmeeg yoom te yonent bi dañ ko laaj ne ko ndax jullit dana nay mu ne waaw ndax jullit dana nekk tàppet mu ne waaw ndax jullit dana ragal mu ne waaw ñu ne ko ndax jullit dana nekk fenkat mu ne déedéet jullit du nekk fenkat walil xaq wala wala nafsik qulil xaq walaw kaana murran waxal dëgg doonte ne sa bopp la yàlla mu ngi ñuy dànkaafu ci quran ñun jullit yi mu ne ñu laa yajrimannakum sanaanu qawmin ala alla taadilu idilu huwa aqrabu littaqwa bañ ay nit bu mu tax nga maandu nga bañ a maandu tey jii di nga gis koo xam ne ndeysaan jullit la bu baax dëkk ak yow ci koñ bi ci quartier bi ci kër gi xamaloo ko lu bon mais bañ biñ ko bañ rek dootoo ko seedeel lu baax buñ buggee wax turam sax nga am seen ah non non non non non bu kooku desee man dootuma bokkati loo ko bañee lu mu la def te yàlla nee na ahlul kitab yahud ak nasaraan bañ bu ngeen leen bañ bu mu tax ngeen leen di seedeel lu bon bu ngeen gisee ci ci lu baax wax leen lu baax la wala yajrimannakum sanaanu qawmin bu mu leen yóbbu bañ ay nit allah taadilu ba du ngeen maandu bañ nit bu mu tax nga maanaam nga maandu ci mbiram lu baax la def lu baax la def ma wax dëgg yàlla tey de lu baax la def lii moom moom lu mun leen koo bañ lii lu baax la bis boo gisee lu bon nga wax lu bon mais comme lu baax la waxal lu baax loolu mooy islam islam dafa maandu xatta ñi dul jullit gis nga yàlla subhanahu wa taala nee na boo xamee ci ñoom lu baax waxul sax rek boo ko xamee nga wax ko mais yonent bi daf la ne xuzul xikma walaw min alsinatil kuffar xam-xam jullit moo ko moom donte ne bu génnee ci làmmiñu yéeféer yéeféer bu waxee xam-xam da nga koy jël misaal laay joxe rek oto yi ñan ñoo koy defar prix par jullit yi wala yéeféer yi est-ce que da nga naan ñi ay yéeféer rek du ma jënd oto portable yi ngeen yor seen poche yi ñan ñoo koy defar prix par da nga naan ñi ay yéeféer lañ du ma laal portable ma ne sijaada yi ngeen toog sax yenn saa yi yéeféer yi defar ko ngeen jël ko dugal ko seen jàkka yi yére yi ngeen sol yenn saa yi yéeféer yi defar ko da yéen a ngi ni sol ko montre yi ngeen takk yéeféer yi dañ koy defar yenn saa yi ngeen takk ko noonu ngeen di jëlee ci wàllu àdduna kon tamit bu ñu defee lu baax seede leen lu baax loolu bu ñu waxee lu baax ngeen jël bu ngeen gisee xam-xam bu baax bu ñu jël ngeen def bu ñu defar ngeen jël ko avion yi oto yi arme de guerre yi li ëpp mooy ñoom ñoo koy defar ndax ñun dañ naan ñi ay yéeféer lañ du ñu laal lu ñu laal boo ko defee doo génn sa kër ndax xam naa ni nga bëgg a dem duus doo dem duus ndax affaire boobu ngay toog ñoom ñoo ko defar nga naan sama tànk du ci tegu kon de tey nga dee kudd bi ngay defar ñoo ko bi ngay lekkee ñoom ñoo ko defar fuuru mburu bi ñoom ñoo la ko defaral kon foo jëm kon nag lu baax lu baax ñun ñëpp ñoo ko bokk nañu nekk ci lu baax li fekk lu baax la ba ñu gis safaan comme dafa dagan yàlla moo ñu ko defaral moo ñu ko wàcceel ci kaw suuf xëy na ñoom ñooñu ci gën a muus daal ñu ciy jiitu defar ko waaye yàlla subhanahu wa taala moo nu ko wàcceel huwa alladi xalaqa lakum ma fi l ardi jamian waaye nag ñoom ñoo ñoo ci ñoo ci def yitte adduna bi ñépp ko bokk ku def yitte rek raw dara taxul noonu lislaam yi raw nu lu dul dañoo def yitte te pourtant ñun ci jamono boobu yàlla daf noo dànkaafu woon wax ak ñun pour ñu def yitte yàlla waxoon na leen waxoon nañu ci alquran wa iddu lahum mastataatum min min quwa yàlla nee na préparer leen la force gis nga baat bi bu yàlla waxoon arme wala mu ne xaalis wala mu ne mais yàlla dane min quwa préparer leen force force nag lan nga koy lan nga koy firee mën naa nekk alal mën naa nekk xam-xam mën naa nekk loo ko yóbbu mu dem moo tax yàlla loolu la utiliser xoolal wa iddu lahum mastataatum min quwa préparer leen force yenn saa yi mën a nekk ci yaram léegi nag bu yàlla ne préparer leen force ñun ñu ne yaram rek la nañ entraîner ngay entraîner entraîner ba ni guj nga dajeeg waa ji yow léegi yaa ngi mën ngaa yëkkati cinq cent cinquante kilos ceeb moom mu ngi yor kalashnikov mu bàyyi la nga naan ah oh ah ba pare mu ne tuy nga rot ana sa doole ban njëriñ la am doole boobu nga doon yëkkati saaku ceeb bi ban njëriñ la am amul njëriñ kon yàlla bu ne préparer leen doole doole jooju bul ko yemale rek ci doole yaram doole xam-xam doole alal doole arme doole doole lépp loo gis ci àdduna nga soxla ko rek ut ci doole lan moo tax tey Chine yi chinois yi américains yi yahuud yi kenn ñemewu leen lu tax ah ah lu tax kenn ñemewu leen dañoo am doole toog ci ku wax ñu ne la xam lu tax jullit ñuy yab leen di leen wulli amuñ doole amuñu dara ci doole moo tax fu jullit jógee rek ñu wulli ko Afghanistan bi Irak jëlee Afghanistan Koweït nan lañ def gars yëpp dañoo ànd ñoo wulli Irak les kasali taliban yi bi ñu jëlee Afghanistan américain yi dañoo ñëw wulli leen wala wala Israël ñaata at mu jël Palestine kenn ñemewu ko laal point d'interrogation parce que dafa am doole te dañoo tuuti nag mais dañoo am doole gis ngeen jullit yi nekk ci àddina bi ku nekk bu jëloon waxuma kaas de xottu gerte xam ngeen gerte kan ci ñu fi moo xam gerte gerte xott xam ngeen ko kenn ku nekk ñun jël benn xollitu gerte xott ñu def ci ndox ñun jullit ñëpp ñu ñëw ba Israël xëpp ko dañuy lab loolu lu muy tekki mooy dañoo tuuti loolu lu muy tekki mooy ñun dañoo bëri mais xoolal amuñu njëriñ xottu gerte laa wax de waxuma kaas xottu gerte laa wax bu ko jullit yëpp jëloon ku nekk jël benn ñun ñi ñëpp adduna bi yëpp ku nekk jël benn def ci ndox ba mu fees ñu ñëw ba Israël xëpp leen ko dañuy lab ndax ni ñu tuutee mais xoolal dañoo am doole est-ce que ñun dañoo bàyyi alxuraan lim ñuy jàngal ñoom ñu jël ko di ko dund dafa am benn borom xam-xam bu jógee Afghan Pakistan dem Europe daf fay at ñibbisi gaa yi wër ko ne ko noo gisee Europe mu ne bàyyi naa fa lislaam mais gisuma fa jullit mais lislaam a ngi foofu mais gisuma fa jullit ñu ne ko fii nag mu ne gis naa fi jullit mais gisuma lislaam maanaam tey ci Sénégal ay jullit ñoo fi nekk mais l'islam nekku fi ñun ñi ñëpp ay jullit la waaye na l'islam koor gee tax ñu toog fi ah buñ ne war nañ suba ñu ne tafsir doof gis kaan te bu stade bu wootee mu fees ana l'islam comme koor lañ nekk nag waaye nee nañ yàlla moom garaawul quoi dañu ànd ak yow koor gi rek mais bu yow nga xam ne koor gi day jeex nag bu nekkoor gi def na ñaari fan gaa yi commencé di tàggu yàlla ndeysaan xoola fan yëpp jàkka ji da doon fees fan yi naafila yi xiyaam yi mais léegi commencé na commencé na digg jumaa ji commencé na digg te premier jour deuxième jour troisième jour quatrième fii da doon fees ci kaw fees el yi fees ci kaw moom léegi viddi na suuf gi kay la ñuy werante waaw gars yi dañu mel ne dañoo langaamu ci loo xam ne dañuy rëcc lu ñuy dem rek am ñuy rëcc di rëcc pourtant bu doon ay saako xaalis la kenn du teel a rëcc de wala ba nga bala ngay rëcc di nga ne kër ga ñaata saak laa fa indi ñu ne 30 nga ne non ça va ça va 30 non kenn du nangu rek jàpp ci benn saak rek. ñu ne la ñaata nga ne yow ko indee ko fa dara nga non non gannaaw naa toog parce que loolu alalu àdduna la ixwatal iman njàngale yaa ngi noonu l'islam di ñu ko jàngal guddi ak bëccëg ñu xam ne aaya yi ñun la yàlla di waxal ñun ñoo ko war a jël dund ko aaya yi wàccewuñu pour garab yi wàccuñu pour rabu àll yi wàccuñu pour mala yi pour ñun ñii la sunu boroom subhaanahu wa taala mu ne walakin waaye yu aaxizukum yàlla dina leen jàppe bi ma kasabat loo xam ne fas na ko dogu na ci qulubukum seen xol yi lépp loo xam ne seen xol yi dogo dogu na ci ngeen jublu pour def ko wala ngeen jublu pour bàyyi ko na ngeen xam ne loolu yàlla daf leen koy jàppee saa yoo waatee billahi wallahi wa tallahi moo tax waat garaaw la léegi nga gis borom kër gu mer ne jabar ji wallahi dinaa la rey yow yow ñu dem woo nit ñi ñu jubale leen ah non non gis nga kii day da ko ne ko ah léegi nag jeex na te kenn du la ne waatoon nga de waxoon nga da nga koy rey wallahi naa la fase nga continuer noppi léegi naa na waat bi nga waat da ngaa war a kafaara wax naa leen léegi ku waat muy dëgg defoo am na sart yu yàlla teg sa kaw bi ci njëkk mooy da ngay lexal ñaata miskin fukki miskin ku ne nga jox ko 1000 francs muy ñaata ah 10 000 xam nga loolu bu doon yar bu tegu la bu doon police benn police moo fi nekk nga ñëw ñu ne bismillah ana 10 000 yi nga naan non man ñu ne la xoolal toogal fii ba fu bëggee bougé di nga indi 10 000 kon léegi nit ñi normal xam nga loolu moo tax nit ñi ragal police parce que da nga ñëw ñu ne la anamu nga naan ñu ne toogal fii nga nga yéex yéex ñu ne eh nga taxaw ñu ne la yow yow lañ leen na nga toog nga bëgg wax ñu ne la noppi pourtant loi yàlla yi moo gën a sévère lool de waaye nit ñi bii mooy bi gaaw moo tax nit ñi ragal ko bii comme yàlla moom da lay bàyyi di la xool yàkkamtiwul parce que xam ne ne rëccoo rëccoo ci asamaan mënoo rëcc suuf amoo foo jëm wiiri wiiri jaari ndaari yàlla mu toog ci buntu bi di la xaar rëccoo bu yàpp ne dafa yéex léegi mun na nekk fii nga toog mun na nekk fii ngay waxee waaye doomu aadama dafa jàpp ne loolu ñëwagul léegi moo tax lu ko neex mu def lu ko neex mu jalgati xoolal oto yi rek boo séenee policier bi nekk fële nooy def da ngay gis waa ji taxaw ne eh ñi lang nañ wàcc ana yàlla eh yow laay wax eh eh yéen ñu amul place wàcc leen nga de gaay ne la xoolal wàcc ñu dara fële lañ yéegee nga taxawal oto bi lu tax avancé woo parce que benn policier moo taxaw ana yàlla yaa ngi ragal police ragaloo yàlla ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne xoolal li gën a graaw da ngay dem tribunal tribunal boo duggee da ngay fay sa portable soo reppee ba juge bi toog sa portable sonné dañ koy nangu policier bi mooy ñëw ne la eh nga ne waaw ñu ne tegal fi nga teg ñu fay ko jox ko juge bi da ngay nekk ci jàkka ji iliman ne fay leen portable yi kenn du fay dañuy rukkoo leen nag kiniŋ kiniŋ kiniŋ kiniŋ kiniŋ waa ji coupé au lieu mu fay ko day koy coupé kat ki koy woo woowaat këriñ këriñ këriñ këriñ mu coupé noonu la ñuy nekkee ba julli gi jeex te yow xam nga ne da ngay julli bu la waa ji wooyee doo wuyu yow xam nga ko fay ko ay di ko def ay vivre sax wóorul fay ko rek yow doo wuyu boo ko defee vivre tamit mu naan la grrr di la maas grrr nga ne ma ma grrr nga aywa dèjà xool amatoo xusu teewloo too yàq sa jullee ngi yàqu kon bu ñu nee fay leen ko fay leen ko mais déedéet xoolal tribunal léegi ñëpp xam nañ loolu. bu waa ji di ñëw rek dañ naan portable yi na fay ñëpp fay ay ku rep ba sama sonné di nga toog 3 jours doo ko jot te bala ñu la koy jox yow lu tax nga bàyyi portable mu sonné nga naan man xaw ma ko tey laa fi mos a ñëw gis nga di fen encore rek jamati ay bakkaar ñu ne demal ba suba boo ëllëgee loolu mooy boo ëllëgee boo ñëw bu fekkoon ne jàkka ji ku fi sa portable sonné ñu nangu police bi fii la taxaw kon da ngay gis ku wàcc oto rek ci tali bi ñu ngeen luwaa yàlla yi luwaa doomu aadama yi parce que boobu yar bi day dal mais bu dee yàlla la te lu ci gën a doy waar mooy wax naa leen ne boo ne allahu akbar dootoo wuyu xanaa doo ne allahu akbar mu sone nga ne ngay xool ku ma woo alhamdulillahi rabbil alamin rahmaani rahim maliki iyyaka na'budu iyyaka waaw loolu doo ko def di xool ku la woo te doo wuyu yaa ngi koy bàyyi ci poos bi te lim lay yàqal dafa bëri li gën a garaaw lim lay dindil mooy xusu toroxlu ci julli gi dootoo toroxlu te julli gu amul toroxlu julli googu baaxul qad aflaha almuminuun allazina hum fi salaatihim boo amatul lool bokkatoo ci muminuun yi da ngay jàng laax dara ñu ne la lissalaati nuurun azim tushriqu fi qulubi almusallin wala yanaaluhu illa alxaashiun julli dafa am leer bu ci nekk leer guy jolli ci biir julli benn neexit bu ci nekk yàlla ne ñu ne ni kenn du ko am lu dul kuy toroxlu ci julleem kuy toroxlu kon nañu xam ne sunu boroom subhanahu wa taala daf ñuy jàppe lu sunu xol yi fas ñu dog pour def ko wala dog pour bàyyi wallahu yàlla xafurun aji jéggalaakoon la xalimun yàlla ku lewet la gis ngeen li mu doon wax sànq ci alquran sànq bi muy daay la aale yi dafa ne wallahu samiun alim fii mu ne wallahu gafurun xalim gafurun yàlla day jéggale moo tax mu jël ay charte teg ko ci sa kaw pour lan boo ko defee mu baal la comme da ngaa jalgati mu noon ngaa jalgati rek mu ne malaaka yi kii safara la jëm acca sa dugg sax buy dee rek yëgu leen ko safara déedéet waaye yàlla moom bindul doomu aadama yi pour di leen dugal safara gis nga safara ku fa dugg rek mooy yow yow da ngaa rëcc dugg safara rëcc xam nga rëcc da ngaa rëcc mais yàlla buwul nga dugg foofu lu tax xoolal ci lislaam yàlla li muy indi ci ay mbir yoo xam ne boo jalgatee def loo warta def nga def lii pour ñu baal la xoolal waat rek waat ñu ne la goreelal jaam avant goreel jaam ñu ne la joxal fukki miskin ñu lekk mënoo ko ñu ne la ah jox ko yére yu mu sol jox leen yére yu ñu sol mënoo ko ñu ne ah wooral ñaata fan ñetti fan mënoo ko ñu ne la déedéet mu woor moo mujj goreel miskin moo ci tegu goreel jaam mënoo ko ñu ne wooral ñetti fan lii yëpp yàlla wax la ko pour lan pour jéggal la rek waaye mënoon na ko cee bañ a fekk nga def ñu def la waaye xoolal yàlla li muy indi beneen bi mooy xoolal encore loolu ngay def fan lay delluwaat ci société bi miskin yi ngay jox ñu lekk nga pare nga romb suñu ñu naan kii moo baax fekk xamuñu li nga def démb ay ginaar lañu reere ñun ñëpp naan ataaya naan si macha allah fekk xamu leen waa ji waa ji dafa ko ngir yàlla de dafa def tooxi doona bu léegi bëgg ñu baal ko waaw moo tax yenn saa yi nga wax nit jërëjëf jërëjëf fekk mu ngi naan ah xam nga ne wallaay def def man kay li tax ma def joxuma la ko nii ngir nii rek waaw nga yor ay ay ay ay ay ensemble mbubb tolloog fukki mbubb nga ñëw ku ne nga jox ko benn nga dégg ñu ne waaye benn paa moo ñëwoon jàkka ja tey waaye yor ay ensemble yére di joxe du hasard de dafa am lu mu def de ndeysaan ak joxe lekk bi joxe yére yi goreel jaam bi woor ñetti fan pour yàlla baal la kon waata ngi noonu mbokk yi nañ leen ci bàyyi xel bu baax ñu bañ koo fowe ñu yëg ne wallahu yàlla gafurun waaye xaliim yàlla dafa lewet moo tax mu yërëm leen ba indil leen ay mbir yoo xam ne bu ngeen tooñee bu ngeen ko defee ngeen génn ci yàlla ñëwaat na ci beneen àtte ci ay nit yoo xam ne dañuy giñ ne dootuñu jege seeni soxna dootuñu sëyëg seeni soxna borom bi subhanahu wa taala mu ne lilladina ñeel na ñi nga xam ne yu'luuna ñooy waat min nisaa'ihim ci seeni soxna giñ naa ci yàlla man ak yow dootuñu bokk lal giñ naa ci yàlla yow dootuma sëy ak yow alxalaf ala adami lwat'i zawja ne yow dootuma sëy ak yow waat al ila mooy waat diir bi nag lu mu yàgg-yàgg mu ngi yem ci ñeenti weer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defoon na ko weer moom la defoon weer pour yar ay soxnaam bàyyi leen ca kër ga ñëw dëkk ci jàkk ji bàyyi leen complètement waaw ba alxuraan wàcc yàlla di leen tànnaloo àdduna wala yonent bi tànn leen yàlla ak yonent bi wala ngeen tànn àdduna ñu ne ñoom tànn nañ yàlla ak yonentam feet la woon tabaski wala korite ñuy laaj yonent bi ndeysaan mbubb ak fuddanoog léttoog dàllak te yonent bi amul ñu fitnaal ko yonent bi génn dem dëkki jàkka ja ba leen weer lu tolloog weer waaw mbokk yi fu ñu fitnaale yonent bi ba mu bàyyi këram weer yéen ñi nag nun nag nee na yéen ci noos rek ngeen di nekk kenn du leen fitnaal te ñu fitnaal yonent yi jàng ngeen histoire Nuux jabaram da ko doon fitnaal ngeen jàng histoire Luut jabaram fitnaal ko ngeen jàng histoire yonent yàlla Muhammad soxna yi fitnaal ko ba mu bàyyi kër ga weer yéen nag ngeen ne yéen kenn du leen def dara du ngeen am problème ak seen soxna kenn ci ñun mënul muñ soxna am mënul muñ waaw sone mbëkk wéq pes boole ko ak ay saaga te yàlla ne wa ashiruhunna bil maaruf ndeysaan wala kalimatu maaruf la yàlla utilisé wa ashiruhunna dund leen ak jigéen ñi bil maaruf ci njekk même fase yàlla mu ne fase bi sax na rafet fase sax day rafet sooy fase jigéen xam nga noo war a def dangaa war a dem ba marché jënd valise bu bees def ci ay yére yu ba mu fees dal dal ak yére lépp ba mu fees nga doog a ñëw yóbbu ko seen kër teg ci xaalis kay waaw teg ci dépasse ba idda bi di jeex am ba mu manqué nga bàyyi ko ci kër gi mu iddaw ba idda bi jeex su fekkee ne mënul toog ci kër gi iddaw nga jëndal utal ko yóbbal yóbbal yóbbal est-ce que ñun noonu la ñuy fase waaye ñun dañaan xolal maa ngi génn bu ma lay fekkaat fii ci kër gi di la kil xaaral rek ndeysaan su ko defee balaa ngay ñëw ndaw si daal di dem daw booy jooy mbokkam wala wala moom it moom it comme yow yow sama fu ngay def moom tam mu def sama fu wax ngeen rek mu bàyyi ba nga xëy mu dem indi ji njaga njaay jigéen ñi léegi bu ñuy yóbbu bagage yi ci kër gi dañuy yóbbu ba yóbbu duy yi làmp yi woo électricité woo woo dindil ma contact yi dindil contact yi tey jaay bon allahu akbar gis naa ndaw soo xam ne bi muy dem dafa juugal yére yi lalu sax basang ci karo yi la teg yére yi dem yoonam lépp la yóbbu tout dindi duy yi sax da koo dindi waaw léegi nag su ëllëg ak si biir buñ defaraatee diggante bi su nooy ñëwaatee xanaa xalaatoo ne mën nañ ko defaraat sëy li ko takk tasu ko de gis naa jigéen joo xam ne jëkkër ji da koo sone woon bëñ bi dañ mbubb mi yëpp yàqu deret léegi bi ndaw si ñibbee seen kër ngi ñu bëgg defaraat yëf yi càmmiñ yi maanaam magam yu góor yi ak rakkam yu góor yi ñoom bëgguñu affaire bi amaat bu ñuy ñëw mbub mi indi deret bi la ñuy indi mbub mi pour bu ñëwee ne nit ñi xool xool leen lu mu def te ndaw si bëgg naa dellu gis nga di ngeen yaakaar ne deret mën na tuuru ci sëy mais sëy bi continue kon am na yoo xam ne war nañ faa mën a bañ a yegg surtout diggante boo xam ne ñaar ñi yàgg nañ def nañ ñaar fukki at def nañ fukki at am nañ ay doom ñett ñeent juróom jékki-jékki rek yu ndaw ndawaan tas sëy bi ku nekk nag bëgg cee ñaaw kii ne ko yow balaa ngay dem dinaa la damm kii la tamit ba muy dem yóbbu lépp da ngay gis tamit benn waaye buy fas jigéen na ko di nga dem de mais balaa ñu lay takkaat waaw damm loxo bi wala toj bët bi wala toj bakkan yi wala toj bëñ ëllëg ak si biir seen doom yi màgg ngeen nar a toogaat nii mun ngeen dajawaat ci kër xale bi xale bi takk jabar yéen ñaar ngeen ñëw nga gis cicatrice bi nooy def doo ñëwee siggi sigg rek parce que xam nga li nga defoon yooyu ay mbir la yoo xam ne seytaane moo koy def ci diggante jullit yi waaye sukkandiku ci alquran jéem ko dund dañuy musal ci lu baree bare parce que alquran dafa ñëw di ñu orienté xoolal yàlla li muy tere nii nga waat ne dootoo sëy ak sa soxna waat parce que yàlla xam na ne yow am na ñoo xam ne lu ñuy sombi mënuñu ko naan fii ngay mer waat ne xaara ba ma wàcc nga ñëw fekk ndaw si sangu ba set sam waaye dóor la taxaw nga ñëw di indi jàmm naan waay te xam nga ne ba ngay dem waxoo woon lii waaw yenn saa yi nga jéngu naan da ngay tëdd ci kaw da ngay tëdd ci suuf lal sa siyaada nag di jéem a aaral ne nga naay jékki-jékki ndaw si wàcc ne leen nii da ngaa waay toogal waay yow da nga toogal ala li nga doon jéngu kon nag yàlla xam nanu nañu jéem a yem suñu place di jéem a sombi lu nu mën a naan yàlla xam nanu jigéen ak góor ñoom ñaar la yàlla bind ñoom ñoo mën a nekk kon bu fi jéem a dugg ci yoo xam ne xamoo ko munoo ko gis ngeen uhilla lakum laylata siyaam arrafas ila nisaikum lan moo ko indi gars yi dañoo wooroon dañ daan woor ba woor guddi Omar wàcc dem këram rek fekk ndaw si sangu ba set defaru taal cuuraayam Omar jege soxna si séy ak moom bi mu defee nag mu ñëw ci ii def naa tooxi doona de yonent bi ne ko loo def mu wax rek ndeke du Umar keneen ne ak man ak man ak man ak man aaya bi wàcc ñu ne léegi dagal na lañ leen guddi weeru koor ngeen sëy ak seen soxna yi uhilla lakum laylata siyaam arrafasu ila nisaikum hunna libaasun lakum wa antum gis nga ay bu ngoon alimallahu annakum taxtaanuuna anfusakum fa taaba aleykum yàlla xam ne am na ci yéen ñoo xam dañuy trahir seen bopp ndax la ñuy wax mënuñu ko waaw jéem a ñàngal fii te bu guddee ñu war la nga nekk fas naan mbee ci biir saal bi loolu dara jaru sunu borom nee na li lazina ñeel na ñi nga xam ne yu'lu na ñooy waat min nisaihim ci seen soxna tarabbusu nañu xaar al intizar wa tamahulu ak ndànk arbaata ashurin ñeenti weer soo waatee yow pare naa ci yow ndaw si nekk ci kër gi nga nekk ci kër gi su guddi jotee mu tëdd ci kaw nga tëdd ci saal ba wala nga tëdd ci suuf bu dee benn néeg ngeen am wala nga génn ca biti du ngeen wax du la jege doo ko jege mu këj nga këj gis nga su ngeen gisee secret yi yàlla ne bu ngeen fasee jigéen bu mu génn na def idda ci kër gi xam nga lu tax yàlla dafa bëgg ñu juboo loolu mooy secret bi nga fase jigéen ba pare ñu ne la bu mu dem de na toog ci biir kër gi na fanaan ci biir néeg bi waaw nga tëdd ci kaw nga tëdd ci suuf wala nga tëdd ci saal bi yàlla dafa bëgg ngeen juboo bëggul ndaw si dem bëggul ngeen tàqali ko ndax mën ngaa xëy liggéey wàcc nga ñëw nga fekk sam waay tey ndaw si sañ-say waaw dafaru ba rafet nga naan waaw mais si kii moo ko bàyyi mu dem beneen waaye njóogoo ngi ne da koy takk de nga ñëw toog beneen bi mooy seytaane mën na génn ci moom génn ci yow mën nga ñëw toog rek mu ñëw indi ndox wala indi guro ne la nijaay baal maa ko maa la tooñ fekk yéen ñaar la kenn yëgut moo tax yàlla mën a jigéen dum génn léegi nag bu fekkee loolu amul këj ngeen ñeenti weer ba waa ji jël décision ne sëy bi day tas moom la yàlla di wax ni subhanahu wa taala waaw déedéet waaw jigéen suñ ko fasee fase bu njëkk du dem day toog jël idda ci kër gi nga koy jox dépassam ngeen xëy di nuyonte na nga def maa ngi fii alhamdulilah pour ngeen juboo moo tax yàlla wax su fekkee nag léegi loolu dem na bu ngeen juboo alhamdulilah bu ngeen jubawul mun na dem keneen takk ko bu fekkee am na ñeet ñett su boo ko fasee day jël baasam dem parce que mënatoo ko takkaat jarul mu fay xaar idda parce que mënatoo ko takkaat te yàlla juboo la bëggoon léegi mënatu leen juboo moo tax yàlla mu ne attalaaqu marataani ñett rek baada zawj moom ngeen gis fi payi théâtre naan baada yëgoo du baada yëgoo de baada zawj la baada zawj mooy ginnaaw bu ko keneen takkee ba sëy ak moom nekk ak moom ba fase ko nga dem jëli loolu mooy baada zawj ku fasa sa jabar ñetti yoon ndaw si araam na la même foofu nit ñi sax léegi dañ koy dañ fay daanu da ngay gis ku fasa ñetti yoon ñu wax ndaw si ne la man na ñett nga daan ko matul ñett wallahi matul ñett nañu indi kaamil matul ñett nañu indi kaamil ba waat problème am na ndaw si ne man na ñett nga ni matul ñett gis nga déjà mooy li ñu doon wax sànq moo tax baatu fase nit na ko denc na nekk ca ginnaaw làmmiñam parce que yàlla xam na ne yow li ngay wax nii xam nga ne yow lii mënoo ko yaa ngi sombiloo munta naan de teeyal defal ndànk bàyyil tàng bopp bi ñu bëri loolu la ñuy def ba pare kereel ndaw si bàkkaar bu ci amee léegi man naa ko yenu matul ñett naa ko yenu man la ah lu tax nangu woo mu dem lu tax parce que xam nga ne kii am na fu mu la féete kii am na lu mu la mënal kii am na lu mu la jëriñ xam nga xam nga xam na kon nag teey leen waaw loolu waa ji naan teey leen borom yat du xeex ak borom fetal wax na dëgg de teey leen nañu teey ñun ñëpp fase moo war a mujj ci lépp na nekk lu nit di mujjee ut solution moo tax yàlla ne boo fasee jigéen na toog ci kër gi yel idda juboo la ci yàlla nam su demee nag ba léegi juboo munta am ba mat ñeenti weer fa in faa u bu ñu delloo rajau ilal wati mu dellu sëy ak moom baadal imtinaai an bil yamin ginnaaw ba mu terewoo waat ne dootuma ko def ba man ñeenti weer mu delluwaat alhamdulillah bu fekkee nag nee na dootuma delluwaat léegi fase mooy ñëw sëy bi day tas ku nekk dem uti keneen waaw fa in faau raja'u bu ñu delloo baax na fa inna allaha ghafurun rahim yàlla jéggal na leen yërëm na leen la ñu defoon wa in azamu talaaq bu ñu jàppee nag ne léegi day fase mooy am waa ji dogu ne day fase fa in azamu bu ñu dogoo at talaaqa ci fase fase yàlla bëgg ko yonent bi nee na abgadul xalaali inda allah at talaq li yàlla daganal te bugg ko mooy fase gis nga nit bu nee jabaram fase naa la arsi day yëngu iblis kontaan iblis sëy bu tas la gën a bëgg ci àdduna iblis day xëy dajale njabootam kaa leen ngeen wax ma tey lu ngeen def kii ne daaneel naa avion mu ne pus dafa dara ñoo ñëpp dañoo sëhit dugg aljanna yow kii loolu rek mu ne damaa daaneel oto mbëkkante ay oto dee ñi tànk yi dagg toppal fële ko dara ñun ñëpp dugg nañ aljanna baal yàlla baal na leen seen bàkkaar loo def mu ne dama këpp bato ko dafoo dara yow loo def mu ne ko damaa fekk ñaar ñuy ànd ma tàqale leen mu ne ko kaay yi jël kaala gi daal di koy kaala ne kii moo liggéey gis ngeen ñaar ñuy ànd laa fekk ma tàqale leen xoola góor ak jigéen seen ànd yàlla lan la wax début bi mu ne jigéen ñi wa axas na minkum mithaqan galiz contrat ngeen signé nga egg ci ndaw si foo xam ne papaam ak yaayam duñ fa egg ci moom mu egg ci yow foo xam ne kenn du fa egg ci yow contrat la nga romb ñu baree bari kër yu baree bari mu romb góor yu baree bari pourtant bi nga ko bëggee jamono bi nga ko bëggee da ngay ñëw toog benn waaye ñëw toog nga sañse mu sañse mu ñëw toog sa wet waa ji toog ne le léeg-léeg muy naqaral waa ji naan la nii yow sa mbax na bi nag bu waa waajee toogee ba caag ne maa ngi dem quoi dama fi jaaroon rek mu ne ko waaw ba beneen yoon nga dem waa ji génn rek mu ne soof ba bëgg a dee nga ne ko lu fi wut mu ne kii topp ma rek naa ko bëgguma la nga naan kon yaa ngi wane ne yow yow lañ bëgg alaysa kazalik du yaa ngi wane ne yow yow lañ bëgg bi ñu la waxee loolu keroog kontaan nga wala kontaanoo loolu nga dem ba ay ay sonné di ci ñëw ay mbëkk di ci ñëw ay dóor ay saaga ay dem police ay dem tribunal ay xëccoo oh te yàlla waxoon na ne bu ngeen amee problème famille ku góor ki bu ñu yónnee xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha su ñu yónnee ñaar ñu muus rek danañu lijjanti seen bi ñaar ñaar ñaar ñu muus waaye bu ñu yónnee ay maire yoo xam dañ naan ah jël seen kaala takk xaaral ma ñëw ay bàjjan yoo xam dañuy balaa ñuy génn kër ga la ñuy jël seen musóor takk seen dikk gàdd ko du ci noir di ñëw loolu sëy bi du jubantiku am na sëy yu bëri yu fi tas suñ defoon ndànk sëy bi du tas am na histoire yu bëri yu fi am ci diggante ñaari nit lu néew mënoon na ko lijjanti waaye ñàkk a demee diine ñàkk a dund diine moo ñu yóbbu foofu parce que kenn du fi ñëw ne la damaa am problème sama sëy ba nga ne ko nañ xool lu yàlla wax demal tribunal yow da nga ñàkk fayda loolu lañ lay wax demal tribunal gis nga boo demee dañuy dagg salaire am da ngay nekk ci kër gi di fay doo fay courant doo fay ndox te booy dem da nga yóbbu bagage yi demal te sa xoola di nga mën a libre nag yooyu lañ lay xelal boo amee ñetti dof yu la wax loolu benn femme dafa am benn jigéen bu ko doon wax tasal billahi ni nga ñàkkee fayda tasal man lii ngay daj wallahi bu doon man la dem naa benn bis mu ñëw di seet si femme bi mu fekk ñu ngi ko yeew mu ne ko yow ndiki lii ngay daj ba pare naan ma tasal yow yaa ngi ne tasoo ñu ngi la wulli ba war noo yeew la fii dem naa ku lay tas loo sëyam billahi wallahi taala mi ngi ci sëy boo xam ne lam fay daj waxu ko picc léegi nag boo ñàkkee xel dof ba ñu bàyyi loola sa jabar waaw nga bàyyi ko keneen dong moo koy takkaat boo bàyyee sa jëkkër keneen dong lay jëliwaat kon bu yóbba nga jàpp yéen ñaar ñëpp ku nekk dafa war a gore xalaat démb xalaat démb xalaat li ngeen séq xalaat fi ngeen jaar balaa sëy bi di tas parce que sëy bu tas yàlla bugg ko waaye nag solution la ci ñaar ñoo xam ne dem nañ ba nga xam ne mënatuñoo ànd moo tax yàlla mu ne balaa ngeen di defaraat diggante bi na ngeen leer ne ñii mën nañu àndaat su fekkee mënuñu àndaat jarul defar waaw ko defee bu fekkee dem ngeen ba dogu ba dara des ci lu lool talaaq mooy sëy bu tas nañu yëg ne fa inna allaha yàlla samiun aji dégg la lépp lu xew ci sëy bi waaye alimun ku xam lépp lu ci xew la samiun li aqwalihim alimun bima fi qulubihim falyahzaruhu bi adami fili ma yakrah wa tarki fili ma yuhib saa yi ngeen demee ba dogu ne da ngeen di juboowaat ah baax na waaye bu ngeen demee ba bëgg a tas tamit yëg leen ne yàlla day jéggale day yërëme xam na jëf yi xam na li ci xol yi nañu ko moytu ci bañ a def lu mu bëggul walla bàyyi loo xam ne dañ ko waroon def mbokk yi ñeenti aaya yi ñu doon jàng liñ ciy jële ci njàng ci ay àtte bi ci njëkk mooy karahiyatu manil xayri bi sababil yamin sip nañ sip ñu ne karahiya mooy sip sip mooy lan mooy loo xam ne boo ko defee doo am bakkaar waaye boo ko bàyyee da ngay am tiyaaba loolu mooy sip ci lislaam misaal ñu ne sip nañ ku lekk laaj bëgg a julli ji jàkk laaj dañoo sip ku ko lekk ah laaj bu ñorul lu tax boo ko lekkee sa gémmiñ day génn xet day dégager xet gu dangereux boros sax du la ci génne ñu sip ko ci lislaam dafa am mbir yoo xam dañ ko sip yenn saa yi nga dégg ku ne la cigarette araamul dañ ko sip yoo dégg loolu kan moo ko sip ban téere lañ bind dañ ko sip cigarette dafa araam sip nañ nit waat ne man dootuma def lu baax ndax waat moo ma ko tere waaw fa man xalafa an laa yafala xayran fal yukaffir an yaminihi fal yafal al xayra képp ku waat ne dootuma def lu baax defal kaffaara wooral ñetti fan wala nga goreel jaam wala nga solal fukki miskin wala nga jox leen ñu lekk su ko defee nga def lu baax loolu nga bëggoon a def ndax lu baax kenn du ko bàyyi ngir waat daganul ndax dama waat moo tax du ma def lu baax li loolu aaya yi dañ koo dàq yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na man halafa ala yaminin fa raa gayraha xayran minha falyakfur an yaminihi walyati allazi huwa xayr yonent bi nee na képp ku giñ waat ne mbir mi duma ko def ñu toog ba ci yàgg ñu gis ne loolu mu waxoon kat gis nañ lu ko gën a baax yonent bi nee na na def kafaara ba pare mu def lu baax loolu nga xam ne moom la waatoon ne dootu ko defati loolu mooy première jàng ñaareel mooy laxwul yamin maxfuwun maafuwun mboosóoru waat dañ ko baale ah wallaay du ma dem waaye wallaay du ma dem après nga dem non wallaay tey après nga def ko loolu nga xam da nga ko wax nii rek ci kaw dañ koy jéggale waaye wala ha surataani am na ñaari anam bu njëkk bi mooy an yajri ala lisaani lafzil yamin wa huwa la yuridu an yaxlifa naxwa la wallaay nee na bu njëkk bi mooy l'engagement waa ji tàmm ko rek ba daa dee waat te waat bi yeggu ko fenn waat boobu yàlla da koy baalaat mu ne bi mu ci joxe misaal comme mu ne laa wallaay doo ma gunge déedéet wallaay du ma dem léeg-léeg nit wax loolu wala mu dem waaw doo ma jox non comme sa soxna rek waa nijaay naa nga non tey moom wallaay du ma la jox te xam nga ne ndaw si bu yàggee taxaw nga ne da nga bëgg xaalis waay génne joxe waat yu mel noonu yàlla duñu ko jàppee parce que langage kese la ci kaw la nekkul loo fas ci sa xol wa saaniyat ñaareel bi an yaxlifa ala cheyin yazunnuhu kazalik fa yatabayanu xilaafuhu nga waat dogu ci dara loo xam ne ba ngay waat foogoo woon na noonu la amee waaye après ca cëppaa ndaw la ndeke la nga foogoon amul waat boobu tamit yàlla du la ko jàppee ñetteelu njàngin bu ñuy jëlee ci aaya yi al yamin al muaxazu alayhi al abd waat bu yàlla di jàppee jaam bi waat boo xam ne yàlla subhanahu wa taala daf la koy jàppee bi ngay waat da ngaa waat pour dogu an yaxlafa muctamidan al kadib qasidan lahu min ajli xusul ala al manfaa misaal waa ji waat dogu ci dara te waat bi mu waat dara taxul mu waat lu dul xam na ne ginnaaw waat gi njëriñ a ngi ci billahi wallahi taalaay après nga ni waaye ah eh soo gisee kat waa ji dëggal la maa waat jox ma dara wala comme jaaykat yi ni ñuy def billahi wallahi dëgg la vrai la fekk du vrai billahi wallahi bi Espagne la jóge fekk mu ngi jógee ngin gi néew waat boo xam nente ne dangaa xam ne ginnaaw waat bi am na njëriñ li ci nekk sa njëriñ moo ci nekk loolu dafa xaraam te yàlla daf la koy jàppee daganut su boobaa wala mbirum àdduna moo ci nekk moom la yàlla di wax ci quraan ne walakin yu aaxizukum bi ma kasabat qulubukum moom la boroom xam-xam yi di tuddee alyamin alxumus wala alyamin alfajir waat goo xamante ne kàccoore la lal wala waat goo xamante ne dafa lëndëm dara leeru ci ñaari waat yi benn daganu ci dafa xaraam ñeenteel lu ñuy jële ci aaya yi mooy waat goo xam ne pour nga génn ci pour yàlla baal la da ngay def kafaara mooy bi ñu doon wax sànq al yamin allati tajibu fiha al kaffaara waat goo xam ne kaffaara kaffaara saa yoo ko déggee mooy li ngay def pour yàlla baal la misaal da nga woor weeru koor nga tey nga dem lekk walla nga naan te yaa ko tey pour yàlla baal la looy def da ngay woor ñaari weer yu toppante loolu mooy kafaara bi soo waatee ne sa jabar yemene laa la ak sama comme sama ndey nga wax loolu sa jabar ba pare bi ngay xëy jàppante ngeen ci dépasse bi walla jàppante ngeen ci dara nga waat ne ko wallahi yemene naa la ak sama yaay yow nga dem ñëwaat situation bi changé te waat nga ba pare léegi nag da ngay ñëw rek commencé waat ah déedéet am na sart yu yàlla teg sa kaw pour ndaw si daganaat ci yow mooy lan looy def wallazina yuzahiruna min nisaikum ah lan mooy atte bi da ngay woor ñaar shahrayni mutatabi'ayni ñaari weer yu toppante ngay woor ñaari weer yu toppante yoo xam ne doo dog bis boo ci dogee benn fan te yaa ko tey da ngay reprendre à zéro beneen atte bi nga goreel jaam beneen atte bi nga jox 60 miskin ku ne 1000 francs aw itaamu sittina miskinan benn saxaaba def ko def mooy jëkkëru xawla mu ñëw yàlla wàcc aaya yi ne ko lii ngay def mu ne yonente bi yow xam nga ne man mii xam nga ma mënumaa war ñaari weer xam nga ko yonente bi nga ko reel jaam mu ne fu ma koy jële yonente ne ko kon joxal miskin yi mu ne fan laay jële lu ma leen jox yonente bi dem këram indil ko jalu tàndarma ne ko léegi lii jox ko miskin yi mu jël yóbbu këram ne man sama man miskin laa sama kër yëpp miskin la aw ma dara yonent bi keroog dafa muuñ reetaan ci waa ji ndeysaan ndax waa ji lim def moom lu ñu ko def rek mu ne mënuma ñu jox ko encore tàndar mu yóbbu këram xam ne man maay premier miskin mooy jox kenn maa ko yeyoo moom ngeen dégg yàlla naan qad sami allahu qawla allati tujaadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila allah wallahu yasmau tahawurakuma aaya boobu loolu moo tax mu wàcc kon lislaam a ngi nii alquran a ngi nii diine jaa ngi nii chaque jour lu ñu war a def rek islaam wax na ci xoolal lii mbirum waat ñu yaakaar ne fa la yem mu indi mbirum jigéen nekkin ci biir kër gi mbirum fase lenn ci ay atte yi léegi nag ñun bu ñu xamul lii ci lan la ñuy dëkk di jalgati rek nga gis ko fase jabaram trois fois continuer rek am na ñoo xam ne sax waxuma la trois mais mat na cinquante ndax bis bu nekk mu ne ko fase naa la fase naa la waaw yenn saa yi nga dégg ku góor ku ne yow da ngaa ñàkk jom fase naa la ba sonn xam nga ne mënoo dem parce que amoo foo léegi nag ñooñu bëgg nekk ay jullit di sëy nekk fa rek ci lu xaraam ñuy amay doomi njaaloo rek doom yi benn judduwul ci lislaam sëy nekkatu fa sëy bi nekkatu fa ci lu xaraam ngeen nekk kon nañu jàng sunu diine nanu leerlu sunu diine bu ñu jàngulee ñu laaj fasalu ahla dhikri in kuntum la taalamun yàlla nee na bu ngeen xamul laajte leen waaye nekk ci lu xaraam rek guddi ak bëccëg soo jógee ci lu xaraam dem ci lu xaraam soo jógee ci lu xaraam dem ci lu xaraam xoola démb ay atte yu ñu nekkoon mbirum deret sa soxna di gis baax ngay séy ak moom wala moom tamit muy gis deret li deret ji di bañ ku koy def mu koy def yooyu yëpp dafa laaj jàng dafa laaj xam alxuraan waruñu ko firi weer ba weeru koor ba weeru koor jullit ñi waruñu dem jàkka weeru koor ba weeru koor di firi alxuraan weeru koor ba weeru koor gis nga saxaaba yi li tax ñu baaxoon li taxoon ñu raw ñu mooy 24 heures sur 24 ñu ngi leen di wax alxuraan bi moo tax ñu xam fu ñuy teg seen tànk ñun léegi weer yu jeex ñu fomp kaamil yi dugal ci tirwaal yi gaa ñi ne jàkka ji à jë ila ramadanil qadim ramadan prochain incha allah fan la diine bi di leere fan la diine bi di leere fan la ñuy xam lu ñu war a def ak lu ñu war ta def fan xoolal dëkk bi li ñuy waate di waat ci sëriñ si barke diw barke diw barke diw barke diw dem nañ sax ba ñiy waxtaan ci diine ji ñemewu ñoo wax waat ci nit bokkaale la kenn ñemewu ko wax ci télé wala rajo dégg rek ñu naan waaw kuy waat na waat ci yàlla te noppi kenn ñemewul wax ne am na ci fi mu nekk nii yenn thème yoo xam ne kenn ñemewu ko wax ci rajo wala télé ndax ndax nit ñi gëm guñ ko gëm ak bëri bu mu bëri ak tasaaroo bu mu tasaaroo ak dugg gi mu dugg ci xol yi ak biir kër yi waaw tey ngiñ waat ci Sénégal kenn du ko def ci yàlla ci nit rek boo demee ca ceddo ga ñu naan ay geño geño geño buum bu ñuy takki tubéy boo ci waatee sama geñog baay giñ naa ci buum googu sama papa di takk tubéem allahu akbar ñee di giñ ci sama bakkanu doom giñ naa ci sama bakkanu doom ñee di giñ ci meen ci meen gi ñu bokk ñee di giñ ku nekk sa xeet la nga leen fekk ñuy giñ ci loolu ngay giñ loolu yëpp lislaam daf ko tere ci yàlla rek billahi wallahi wa tallahi wala wa rabbul kaaba yooyu la ñuy giñ wala nga ne wallazi nafsi bi yadihi yonent bi dafa comprendre oon Aïcha ba bu Aïcha meree daf koy xam yonent bi dafa jékki-jékki mu ne Aïcha yow rek laa xam gis nga de diggante jëkkër ak jabar war ngaa xam sa jabar su kontaanee nga xam ne kontaan na su meree nga xam ne kii dafa mer Aïcha bi mu waxee loolu yonent bi bi ay yonent bi waxee loolu Aïcha loolu rek laa xam boo meree sax dama lay xam mu ne su ma meree noo may xàmmee mu ne da nga naan wa rabbu Ibrahim au lieu nga ne wa rabbu Muhammad su meree yonent bi day gàddaay turu yonent bi du ko bëgg a wax danaan giñ naa ci borom Ibrahima mu ne saa yu ma xëyee dégg nga wax loolu rek dama naan ah tey de sama ndaw si nekkul nga gis mu commencé di ko neexal ndeysaan di ko neexal pour mer bi deñ xoolal ñun tey boo xëyoon sa jabar mere la au lieu nga fay mer bi yow yaay dem jënd essence sotti ci taal ah non yow mënoo wala jigéen bi tamit bu ko jëkkëram mere ñëw rek jël si jaada ji rek laal ci suuf tëdd danaan lay la xëy la laa mënoo bilaay boo mënoon ci saal ba kay dem loolee moom it mu neexal la loolu mooy suñu problème benn waaye dafa takk jabar mu ne jabar ji man ak yow ba yow mal xiyaam du ñu xuloo waa ji ne ko lu tax te ñuy nit mu ne ko saa yoo ma gisee ma mer neexal ma saa yoo meree dinaa la neexal mbokk yi boroom kër gu soxnaam tooñ wala boroom kër gu tooñ soxnaam ah ñëw sukk ci say óom indi la ndox wala indi la soow ne la baal ma nooy def ah baal ma maa la tooñ loo ci mënati xanaa léegi yow dafa am leneen loo nar mais baal ma wallahi baal ma maa la tooñ léegi nag góor ñi dañoo rëy dañuy tooñ ba pare waaw bu ñu demee di waxtaan ne maa tooñ bu ñu ñëwee ci kër gi tooñu ma dara rëy boo tooñee bul rëy da ngaa tooñ sa soxna wax ko baal ma lan la doomu aadama gese nga luy rëy mais boroom xam-xam yi dañu ne bu dëgg réeree ci pénc bi ñu koy wër suba ba ngoon ba gisuñu ko boroom doole moo tooñ moo tax kenn nangoo wax yow yaa tooñ boroom doole bu tooñee surtout nag kooku tooñ dafa am xaalis kenn du nangoo wax dëgg bi da ngay gis ku naan waaw mu mel ne que fekk rek lu ci waroon rek mooy sëñ bi ñu naa ñu ne yaa tooñ ñëpp ñëpp affaire bi gis ngeen sànq li ñu ubbee woon waxtaan tafsir bi mooy keroog ba ñu tuumaale Aïssa Diallo yëf yi dem ba tas biir kër yi am kër yi mu tas yëf yi dugg kër yonent bi yonent bu xëy suba day ubbi néegu Aïssa ne ko Aïssa na nga def maa ngi fi luy sa mbir waaw Aïssa Aïssa ne waaye yonent lu may wax nii bis bu nekk léegi-léegi day ubbi sama néeg naan ma luy sa mbir lu xew Aïcha xamul lu xew de te dëkk baa ngi tas mu ànd ak benn jigéen ñuy dem àll ba rek ndaw si fakkastalu rek daan ne yàlla na diw dee mu ne ko da ngaa dof loo diw def ba nga koy ñaanal alkande mu ne ko xanaa déggoo lim lay wax gis nga moo tax rattaxle mu ne ko lu ma wax mu ne mu ne ah kon man kay ndeke lii moo tax man yonent bi sax léegi dootul dugg sama biir nekk ci buntu bi lay taxaw mu ñëw rek buub ay bagage am ñibbi buub ay bagage am ñibbi kër Aboubacar ñu toog toog toog toog toog alxuraan daal di wàcc weer yonent bi nekk ci situation boobu ñu naan jabaru yonent bi da doon njaaloo ci biir dëkk bi naa fekk yi jël affaire bi gonfale allahu akbar moo tax ku jàpp ne boo baaxee kenn du la wax dara da ngay nax sabab ku toll na yonent bi ñu tuumaal soxnaam njaalo ku toll ne soxna yonent bi moo tax ndeysaan benn jigéen dafa ñëw di ko wax jëkkëram naan ko dégg naa jabaru yonent bi di daa njaaloo mu ne ko ndax yow di nga ko def mu ne man mu nekk te pourtant jabaru yonent bi la gën de kon looy bañal sa bopp bañal ko ko loo weddil sa bopp bul ko ko takkal parce que ñoom ñooy ummahaatukum yonent bi mooy yonent ay soxnaam mooy sunu yaay annabiyu awla bil muminina min anfusihim wa azwajuhu ummahaatukum ndeysaan alxuraan daal di wàcc yàlla ne ñi indi histoire bi ñi def mbir mi ay naafiq lañ ci biir jullit yi inna alladina jaau bil ifki usbatum minkum bu leen yaakaar ne lu bon la waaye kenn ku nekk la nga ca wax di nga ko ci am kenn ku nekk la nga ca wax di nga ko am yàlla di jàpp jullit ñi foofu di leen yar ba ne leen lan moo tax bi ngeen déggee mbir mi ngeen njortu lu baax zannal muminina min anfusihim xayran wala julli day njortu lu baax waaye jàdd koñ rek gis ilimaan taxaw ak benn jigéen rek da ngaa xam lanam la xam nga lanam la xam nga lu mu koy wax ah nit def ndànk julli day rafet njort zannu mil mumini xayran yonent bi ne njortu leen ci jullit lu baax njortul lu baax iliman da gis naa ko mu taxaw ci buntu baar bi kii c'est sûr que day naan xay wal ndànk teeyal teeyal teeyal nañ teey def ndànk ngeen njortu lu baax ah xam naa ne dafa am ku mu soxla woon rek wala dafa am lu wala am dafa am sax ku mu doon waar mais yow nga gis rek yóbbu ci lu bon alxuraan bi mu wàccee ndeysaan Aboubacar mu ne Aïcha ah léegi nag comme mbir mi leer na jógal nga tuubal yonent bi mu ne tuub man kay tuubalu ma ko lu tax ñu ne yonent bi mooy sa kilifa mu ne bu nekkee sama kilifa nag man yàllaa ma setal de yàlla laay sant amul keneen ku may sant man yàllaa ma setal lu ma baalu kenn gis ngeen kon jullit ñi dara taxul tey seen dund yàqu mooy ñàkk bi ñu ñàkk gëm alquran ñàkk bi ñu ko ñàkk xam alquran yàlla daf ko wàcc pour ñu dund ko aw dundin la manhaj la manhajul xayaa sikki nekku ci ne li taxoon saxaaba yi baax mooy alquran bii ndax luwaa yi lii ñuy wax ni xam ngeen ne lii tey nit dee nit dee nga ñëw jël kaamil bi naan ko ولا تجعلوا الله أردة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم ku de ku dekk lu mu mën ci li yàlla nee na bu leen waat kii laa dee nga ñëw naan ko yàlla nee na bu leen waat te moom dafa dee ku dee dina waat loolu kay du pour ku dee ki alxuraan pour kuy dund la li tunzira man kaana hayyan pour ñu waar waa ji balaa muy dee ñu bàyyi ba waa ji dee ñu naan للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر waa ji dee na mënatul ci jabar ji dara nga naan ko yàlla nee na ku waat ne bu du fanaan ak jabaram ndax toog ñeenti weer kii daa dee wala aaye démb bi yasalunaka anil mahid waa ji dee na nga ñëw naan yasalunaka anil mahid di tajwid kii daa dee ku dee lan la xamante ci loolu mën na ko alxuraan du pour ku dee loolu mooy sunu problème foo fekk ñu toog groupe di jàng alxuraan bu laaj daa am ku dee muñ bàyyi ba waa ji dee nag ñu ñëw di ko jàng lii la ñuy wax gis ngeen di ko firi lii ñu wax ne fan la yàlla wax baal naa ko dee ki fan la anamu yërëm naa ko alxuraan ay luwaa la saa yu ñuy bàyyee ba nit dee ñu ñëw di ko jàng mus nga malaaka yi dañ naan ko dee nga de dee nga atte yooyu pour yow la woon te defoo ci dara nag kon yéen yéenay atte seen mbokk bu dee yéen yéen a ko atte ndax li yàlla waxoon def leen xolal bi weer bi commencé ba léegi yaakaar naa ci yes alu na kay lañ nekk ci yes alu na kay gaa ñaa ngi lay laaj affaire bi di tont bi ñu commencé ba léegi fan ngeen fi jàng yàlla nee na jàngal leen alxuraan ku dee yërëm naa ko baal naa ko fan lañ fi jàng ñaan fii bu bu ñuy ñaanal ku dee déet bi ñu commencé ak léegi wax leen ma ko génne leen aaya bi léegi nag kon lii yëpp ay atte la kon du pour ku dee du pour kaam du pour oto bi du pour armoire bi du pour du pour pour lan la pour yow nga xam ni ngay dundee ci kaw suuf lii daf lay gaar su la gaaree lan ngay def bis boo demee ba yi dal la lan ngay def est-ce que Sénégal 12 millions yëpp xam nañ lii est-ce que ñi ko fi xam mën nañ million ah waaw léegi nag bu fekkee ne loolu la ba pare ñun ñu ne jullit lañ quatre-vingt-quinze pour cent musulman te xamuñu lii lu ñu ne da ngay dégg ku ne ah bon man sama jabar man xaw ma woon ne jigéen bu gisee baax kenn du séy ak moom ah man dama ko doon def de ñu ne ah am na wëy mais xaw ma gis nga xaw ma boo xamul nga laaj nga jàngi portable yaa ngi nii bu ci mujjee wàcc ñu may ko nit trois jours laa ko may nga ñëw mu génne la ci lu tubaab bi xamul woon système bi yëpp lay comprendre te gars yi xoolal ki la fi gën a mën a ñàkk a jàng tubaab moo la gën a mën a manipuler portable gars yi ñi ci ëpp jànguñu tubaab mais dañuy jàpp machine yi di ko manipuler am na ci ñoo xam ne xam nañ ni ñuy manipuler machine yi ba raw tubaab bi ko defaroon ah benn booy boo xam ne mu ngi seen koñ oustaz la de oustaz bu naree caay-caay xam nga nu muy def groupe seen groupe bi nekk seen kër bu courant bi coupé groupe bi lay paanal pour ñu ne nañ ko réparé ji wala mu ne dafa am pièce bu ci paan bu ñu ko joxee demal jënd rek mu tourné ko tourné waat toog tuuti ñëw daal di taal groupe bi paa bi ne ko mu ne ko defaat naa ko ci groupe bi bu ñu ko yóbbee ci kuñ ko mën a yóbbu moom moo xam li mu def dañuy dem nit ñi xool fu nekk duñu xam lan la bu ne paa bi affaire bi moo ci manqué il ma dem jëndi ko noonu ñu def ba xam yooyu lu tax mënuñu def noonu ba xam alxuraan fi mu ne gis nit di jàng jàng dawal oto deux mois trois mois nga gis ko wala noo def ba mën ko dangaa jàng lu tax mu ñu bañ a jàng suñu diine kon atte yaa ngoog mbokk jullit yi suñu borom subhanahu wa taala mu ne ci ñeenteelu juróomeelu atte mooy hukmul ila mooy ku waat ne dootul sëy ak soxnaam bu mudda bi in kaana aqall min arbaati ashur su fekkee dafa gën a tuuti ñeenti weer falahu bu fekkee dafa bëgg a delluwaat mu delluwaat seeg ndaw si bu fekkee mudda bi dafa jeex li gën mooy mu delluwaat seeg moom bu fekkee nag góorgóorlu nag ba mu jeex si mu mu fas fase fa in kaanat aksar min arbaat ashhur fa inna alayhi an yufi'a ila zawjatihi aw tutliqu alayhi benn mu delluwaat rek wala mu fase ndax doo ko bàyyi mu continuer lu ëpp ñeenti weer yi mu continuer nekk ci kër gi doo sëy ak moom doo wax ak moom bàyyi ko fu mu continuer am na benn jikko bu bona bona bon bu sénégalais yor mooy yow duma la fase kenn du la takk ndaw si toog deux ans trois ans fi mu nekk ni fan yi rek laaj nañ ma ko benn jigéen boo xam ne nee na toog naa deux ans waa ji fasewuma takkuma joxuma ma lekk joxuma ma naan nee na ma kenn du la takk loolu dafa aram su passé quatre mois dafa aram benn nga dellu mu nekkaat sa jabar ñaar nga fase ko keneen takk li gën a dee nag mooy yow da nga yor ñaari jabar am ak kenn ki problème abandonné ko ne ko yow kenn du la takk kenn du la fase ba pare dem nekk ci sa beneen jabar di faj say aajo moom mu toog fee di dee bu ragalul yàlla mu dem di njaaloo loolu góor gu ko def bu ndaw si njaaloowee yow yaay jël bàkkaar beneen bi mooy ndaw su mel noonu dagan na mu jël xaalis li nga ko joxoon ci can mu ñëw ne la am simmeeku sëy bi dagan na mu dem ci autorité yi tribunal mbaa police mbaa imam bi ñu tas sëy bi ndax takk koo ko fase woo ko fi ci masala bi la Omar ibnul Xattaab teg tànkam ne bépp soldaar bu demati bi xeexi bul def front ba lu ëpp ñaari weer jigéen bu mës a sëy tàmm sëy mënta toog ñeenti weer du sëy foog mu sëy boo ko deful rek day njaaloo ji moo tax mbokk yi l'islam lim ñuy jàngal pour suñu société bi suñu dund bi jag la suñu dund yi jag pour gis ngeen njaaloo gi ngeen di gis ni lu tax mu bëri mu takarnaase mooy ñàkk respecté Qur'an ñàkk xam atte yi jël jigéen takkoo ko fasewuloo ko bàyyi ko ay ati ati at séqu leen lal séqu leen dara te yow ngay faj sa aajo feneen ndaw si tamit bu melee na yow bu xëyee wëri nekk ci li mu nekk bu ñibbisee naan ay comprimé comme léegi li xew ci jamono bi loolu musiba la loolu la ñu yàlla di bañal moo tax alquran bi yàlla wàcceel ñu ko pour ñu xam fu ñuy teg suñu tànk mbokk yi fi la ñuy yem incha allah ba altine jàmm ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jéggal ñu njuumte yi mu jéggal ñu suñuy bakkaar mu may ñu ñu màng bépp xéewal bépp yiw bépp tiyaaba bu nekk ci aaya yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu